leen jaajëfal ah ñu ñëw rek ci kàllaamay Kocc Barma di remercier la presse euh, di remercier ñi fi nekk ñëpp ah di remercier ñi ñuy déglu aussi ci ci internet bi di leen wax ne rek tey man seen doom Queen Biz di présidente mouvement MJR maa fi ñëwoon tey pour waxtaan ak yéen au nom du mouvement pour ñu waxtaanee ci situation dëkk bi xëy na nag ñu bari dinañ ne lan moo tax man ma war a wax dina am ñu naan aussi kii mooy kan ba mu war a wax waaye dama leen di xamal ne rek ni Queen Biz doomu senegal la di jigéen euh, di waykat di di porte porte parole di woykat te boo nee woykat rek dañuy ne kii day wax ñuy dégg moo tax nag tey ma gis ne bu ma waxul mën naa bokk ci ñu naan complice mën naa bokk ci ñu nangu ci lifine ndax bu ngeen fàttalikoo 2012 bi ñu fiy jëlee suñu papa Abdoulaye Abdoulaye nga xamante ne ni ñëpp a ko bëgg sax waaye dafa amoon lu taxoon jeunesse bi bëggoon mu dem muy troisième mandat bi ñu doon bañ. waaye aussi dañu séntu woon lu gën waaye kuy séntu lu gën it boo demee ba gis lu yées da ngay war a taxaw def taxaw seetlu daan ne ah man lan laa mën a apporter sama réew moo waral nag tey ma toog ma xool ma xalaataat bu baax a baax di sant yàlla bu baax ba nga xamante ne aussi may na ma ma jàng xëy na ba am ci yenn niveau yi ma mën a toog di xalaat it war a mën a am lu ma mën a jëriñal sama réew ci laa toog woote tàllal loxo ndaw si wuyu si ma ndaw Sénégal ñu wuyu si ma ma leen di gërëm membre MGR yi maa ngi leen di gërëm ñi ci panel bi ñi ci diaspora bi ñëpp ñëw wuyu si ma ñu ànd pour ànd ak man ci xeex bi lu ko waral nag mooy ni que tey Sénégal dañu dem ba xàmmeetuñu suñu réew tey Sénégal dund bi ba fa metti dund bi cher na ba ma demee di ndugg démb rek bi ma gisee diwlin bi fi ma ko daan jëndee ak fi mu toll dafa gaaw a gaaw ba man dama tiit bi may romb sànq aussi di ñëw ba ma gisee mbedd bi ñu nekk ci biti di ñaan dañu bëri ba man damay tiit waaye dama ne lii tey jii ñun sénégalais jeunesse bi ñoo ko mën a xeexal suñu bopp ndax dañoo dëkk ci réew mi nga xamante ne yàlla da koo naatal lool yàlla dafa naatal senegal mën naa ne c'est un pays béni très riche en ressource naturelles ma koy commencé ci Kédougou bi nga xamante ne man sama yaay fa la jóge yàgg naa fa dem xam naa fa dama fa daan vacances bi may gën a di nekk ndaw sama maam bu jigéen dafa ma daan may ay cadeau di ma jox ay boule door xaw moon sax temps jamono jooju lan mooy valeur loolu tey laa koy door a xam dama naan ay tey bu doon tey lañ ma doon may loolu ma ko daan jël am na yoo xam ne sax daf ma daan réer ndekete moom bu daan bale buntu kër gi wala muy dem toor sax da daan for ay or dëkk bi dafa bëri or bëri or bëri or ba nga xamante ni or boobu yëpp rek oru Kédougou rek mën na dundal Sénégal yëpp oru Kédougou rek mën na dundal Sénégal yëpp et c'est valable pour les autres ressources ah yeneen dëkk yi am ay ressources naturelles mais dañu jël lépp jaay ko tubaab yi dañu jël yëpp jaay ko tubaab yi te bi may gën di nekk ndawit loolu laa doon wax sànq ma ne damaa bëri jaar-jaar man sama papa prospecteur minier la woon pour ñu ko xamul mooy ñiy liggéey ci mine yi mi ngi doon liggéeyee société sénégalaise des phosphates de Thiès SSPT bu nekk Lam-Lam à Thiès te foofu boo fay liggéeyee ay cité rek fa ngeen di dëkk ak seeni doom man foofu laa dëkk ba ni ma amee entrée en sixième entrée en laa door a ñëw Dakar. mais bi may gën di nekk ndaw nga xam ne dama jege sama papa lool takku ko lool it dama daan ànd ak moom dugg ci otoom rek bëgg xool sama papa lu muy liggéey suñu àndee dan daan dem ci mine yi mu yóbbu ma zone 8 Lantinor àllukaañ may xool phosphate yi di gis affaire nu mu nu mu nu mu daan ñibbi damay kontaan dama naan mun sama bu mag la laa daan jàpp mais bi may gën di màgg di gën di xàmmee laa xam ne ndeke ñun suñu papa yi tubaab yi la ñuy liggéeyal phosphate bi Sénégal moom ko dañ koo jaay tubaab yi et c'est vraiment dommage que ñun lu ñu moom ñun doomu Sénégal jëriñoowuñ ko zircon am na fi géej gi laa doon wax sànq muy ressource halieutique gi Sénégal li mu mënoon am ci géej gi waaye jëriñoowuñ ko tubaab gee kay jëriñoo géej gi kay lu mu mën kay mooy yóbbu suñu ndaw yi rek ñu ci bari des nañ ci géej gi ñu ci bari dee nañu ci géej gi tey maa ko këli gi ma jógee nga xam ne sam foofu la sokkee koo it commune bi rek li fa li li fa li fa des ci géej gi ci seeni ay ndaw mënuma koo compter moo tax mënuma leen sax jox ay chiffres te loolu c'est valable pour tout le Sénégal ndaw yaa ngi dem Sénégal am na lu ne ba am nag pétrole bi nga xamante ne moom la ñëpp di bàkkoo waaye nee naa leen pétrole googu it ah nar na bettu ñu bari de ndax euh, lu mujj bi ci am gaa yi luubal nañ pétrole bi yëpp dara desetu dara deseetuñ ko bi ma demee nag toog def taxaw jàngat googu yëpp dama ne nag il il temps man Queen Biz ma jóg xeexal sama réew xeexal sama jeunesse avec l'aide bien sûr des jeunes parce que benn lam mënul yëngu te benn nit mënul xeex ba tax na tey damay gën a di tàllalaat loxo ndaw ñi yéen ñëpp ngeen jóg ñu conscient ci lii nekk di ñu dal nii xeexalul nag suñu bopp ndax bu ku ne doon xeexal boppam amaana kon ba damay toog tëdd nelaw waaye dañuy xeexal suñu réew xeexal suñuy rakk xeexal suñuy doom émeute yi fi amoon mars passé bi ñuy jàppoon président Ousmane bi ñuy jàppoon euh, Ousmane Sonko gouvernement bi dañoo taxaw wax ne du dara jeunesse bi ñoo amul liggéey ñoo kii xam nga situation jeunesse bi ñoo précaire loolu lañ waxoon mais li ma ci jaaxal mooy ni que ñoom dañu toog ba 9 ans door a xam souffrance su sénégalais yi ñu toog ba 10 ans président de la république commencé naan day def jokkoo ak ndaw ñi waay waay Sénégal yeewu leen ku leen mënul dimbale ci 10 ans bu ko desee ñaar ñaari at wala benn at ak xaaj mënu leen dimbale loolu ay naxe la man gawma loolu waaye damay sant yàlla nag bi nga xamante ne man bi may wax sànq ci phosphate bi ah loolu laa doon waxaale foog ma signalé ko dama ne président Macky Sall foofu la doon stagiaire premier stage mi ndax liggéey na sama bureau papa ah, waaw waaw ah tamit foog ñu wax ko <laughs> sama yaay bu daan tibbal sama papa ceeb bi ñoom ñëpp dañ ciy lekk donc sant yàlla <laughs> waaye tey damay kontaan ba dama naan man bokk naa ci rare artistes yi nga xam ne musuñoo nekk di am favooru euh, régime bi fi nekk moom ma tax a tey am fit di wax mës naa taseeg benn jour far Ngom man na fu ñu tasee mu naan ma Queen Biz moom ci boppam moo wax ah yow de bokkoo ci artistes yi nga xamante ne su ma daan joxe xaru tabaski yeeg enveloppe yi musuma la cee jox bokkoo ci ma ne alhamdulilah calaa laa yëg ni sax ndeke am na artistes yoo xam ne première dame da leen di may xar ak ay enveloppe waaye man damay sant yàlla ba bokkuma ci loolu tax ndax Olof Njaay dafa ne ku la abali bët fu ko neex ngay xool te man damaa bëgg a libre liberté boobu tey moo ma may tey ma am sañ-sañu taxaw di wax di doomu réew mi nag dëkk ci réew mi pour ñu naan Queen Biz lu tax muy wax wala yow yaay kan pour wax yàlla may na ma ma juddoo fi yaroo fi di sénégalaise màggee fii yàlla may ma tuur ci carrière gi ma nekk di leen ci remercier yéen presse bi ndax jàpp ngeen ci lu bari waaye yàlla it may ma ma jàng ndax xëy na ñëpp mënuñu xamandoo lépp waaye amaana ñi ma bokkal promo xam nañu je suis juriste de formation pour vous le rappeler donc euh, xëy na duma ci sori mais dund naa lu bëri université ba tax na su may wax moowu université yi étudiants yi li ñuy jànkonteel man xam naa ko ndax it ba ma nekkee université man engagement commencé wu ma ko léegi ah ndax euh, bokkoon naa ci mouvement étudiant nekkoon délégué amical nga xamante ne list bi daan représenté ñun suñu faculté ñaari jigéen a ci bokkoon li ci des yëpp ay góor la tellement que c'était dur xeex bi dafa metti ba jigéen ñi bëgguñu ci dugg ñun ñaari jigéen ñoo ci bokkoon dan daan dem front di xeexi ak policiers yi dañuy dem di dàkkante di sàndante xeer lu ñuy def ci front rek def naa ko te it bu ma leen fàttalikoo ne bu ma leen fàttalee ne 2009 tey xam nga engagement dafa xew wala nit ñi naan Queen dangaa bëgg a riirandoo may bëgg di fàttali sénégalais yi ni leen 2009 génneeguma sax album siiw ma kenn xamuma waaye je fais partie des rares artistes à l'époque ah, bu dul woon man kese it ah, pour ne pas kii maa taxaw jël sama gitaar woy fi wàllu sénégalais yépp apprécier ko non damay bëgg di fàttali rek pour nit ñi xam ne que wala ñi naan ne riirandoo ko ci dugal wala engagement dafa xew rek mu bëgg a jóg Queen ba muy jóg boobu foog naa ñu bari jóguñu waaye tey boo waralee tamit boo boo leen gisee aussi yéex a jóg bi dama bokkoon ci ñu jàppoon ne rek ne. nit boo ko falee danga koy may temps may ko mu liggéey waaye ñii dañoo gàtt xel dañoo ëppal ci li ñuy def ñoom seen bopp moo leen intéressé ak seeni ay doom dama leen wax seeni ay doom seen benn doom bu ci gën a ndaw mun na dundal mille famille eh, ci ñun ñi ñëpp et je vous parle en connaissance de cause parce que man maa ngi ci milieu lu ma leen wax ngeen war koo mën a gëm te suñu alal lañuy jël di ci bànneexu suñu alal lañu yor di ci def lu leen neex tey nag le Sénégal va changer avec la naissance de ce mouvement ñun sénégalais ñooy taxaw ñun jeunes yi ñun jeunes yi ñooy taxaw xeexal suñu réew ñun jeunes yi ñoo jóg c'est pas pour des questions d'intérêt personnel non non parce que bu doon intérêt personnel ku ne mën nga gérer sa bopp kon xëy na duma fi sonn dina ci naaj bi di wax bay bëgg dee mais gis nga bu ñu toogee li li olof naan luy raam ca ñag ba la jëm bu ñu toogee dinañ fi dem ba mag ba màgget toog di jooy suñu doom yi ñëw di jooy ndax ñoom liggéeyaluñu Sénégal seen bopp la ñuy liggéeyal dañu nekk di profité wu ci Sénégal. bu ñu jógee ci loolu ñëw ci situation actuelle situation politique bi ñu gis aussi ni que injustice bi nekk ci Sénégal moo tax ñu nit ñu jóg di jàppale xeex di jàppale waa Yewwi ci xeex bi ndax euh, président de la République dama jàpp ne buñ la falee.